man maa sàkk woon waxtaan bi tey ndax euh, gannaaw man maay taaw dama war a doxal te comme bàyyi nekkatu fi ma takk soxna indi ko ci biir kër gi pour sama famille la ak samay frère ak sama sœur. ah dama doon fóot dina laa jaale yére pour ma fóotaale ko. ah eh, eh, teggin la fóot mi. teggil naa la ko jërëjëf waay déedéet teggil naa la ko jërëjëf. jànk lan laa la fekk nga koy def. fu beere. gis nga de jéeg laa nag damay <laughs> sëy. sa jëkkër boo ko raayee fii ba dara du ko jam ci sa loxo yi dafii dara fii bàyyi dem takk keneen de wala mu dem doxaani. gis nga lii ñaari ñuul yi ci nekk bu mag bi pour sa jëkkër Cisco moom lañ ci tëj. bu ndaw bi pour yow la loo ko wax suba ba ngoon loolu lay def. yow de ay damaa gis man fan yi da ngaa semaine ngi nii su ma la yónnee doo dem lu ma la sant doo ma ko defal. parce que yaa ma teg bët yow li ma waroon def ci kër gi yëpp yaa koy def. mayoo ma dara dépense ak lépp léegi sa loxo lay tege yaa ma teg bët. Aïda Aïda yow yaa ñëw ngay tontu suma yaay. suma yaay mooy sa moroom. yaay bu matul ma wax ko boppam. Ibrahima Naf Mbaye wartoon a dóor kii da ko waroon rey. dia bul wax lolou moko man moko upp ëpp doole. mais da moy kan. diglu diglul ma wax la woru ko wona dor woru ko wona fek ba negam diko dor Aida, Aida, Lala, Lala, dis-moi qu'est-ce qui se passe. yaay moom mu fekk fii naan cagala ba pare na ma fii mbéj ma. ba No, xaaral ma ñëw gis nga man fu fekkon dama koy rey du jugee fele ci àll bi bëgg a tas kër gi ah. dama ne waru ko mën fekk neegam di door bu waxe nonu Ibrahima. way da ko wara door nga bu waxe non wa mais yaay. lan moy problème na fi mbay lan moy problème na fi mbay la bëgg xam bu mu dugg sama neeg di door sama jabar. fi mbay bu américain noppi mu na. géwél la deretu géwél la nam ba ko wara nangu bés bu duggatee sama neeg duur sama jabar dinaa ko nox. Eh. te mu koy nox. waaw ma eh, noxu la jigéen moo tax nga diir sa yaay di wax n'importe qui gis nga na fi bis boo ko laalee laa la wax man nga koy digaale yow. yow doo sax mi yow góor ñee nga yow. Ibrahima yow jigéen moo tax nga taxaw fii di wax sama yaay di wax n'importe quoi. Ibrahima gis nga kii bu melal mi yeneen ndari yaa ngi ci mbedd mi di dawal laa la wax. nga plan bi defaloo ñu dara joxoon ñu lekk joxoon ñu naan sama bàyyi da koy bàyyi alal du bëri yow doo dara yow doo tos da koo jur juróo ko moo ngay doxalee nii juruloo ko. ni ngay waxee man. yow nag da nga natt sa bopp mais maay sukki say laaf yow. faalew ma la yow. toogal kii la bu waxee moom nii. faalew ma la man. ak la Mm. man de boo gisee ma woolu la tey Cisco daal moom la jabaram monte mu nekk ci kër gi lu ne mu def ko fi démb mook Ibrahima daanaka rayante lañ def ñoom ñaar Aïda daal laa doon waxal mm. di ko bàcciloo ak kol donc mu yàq ma ca lu ne Nafi Mbaye yëg ko dóor ko ba muy bëgg a dee mais c'est normal Nafi réagir de la sorte parce que koo xamante ni day gënante ak sa yaay mbagg ah, di ko wax loo xam ne neexoo c'est normal Nafi Mbaye réagir noonu waaye Baara Nafi Mbaye xam nga ne wérut te li mu def nii kenn sant kooku Cisco nag soppeeku na soppeeku na. ah Cisco moom lan moo ko dal dafa commencé dof wala dafa am problème lan moo lan moo lan moo ko monté de la truc du genre. kenn xamu ko parce que Cisco maa ngi moom xamante nañ melu woon nii lan moo ko mën a fëkk. kenn xamu ko ah, man daal xam naa ne yaay xaritam yaa koy wax dëgg te sincère nga su ma sañoon nag nga waxtaanal maa ngi moom ndax sama doom soppeeku na te lii gënaluma. waaye jigéen léegi nag génération bi ñoom sëyituñu. ah moo ñëw seet si rek mais sëyuñu. doy na waar. mais nag yaay loolu na sa xel dal. parce que Cisco sama xarit la maag moom yàgg nañ je ferai tout moom possible pour que yéen ñaar ngeen dellu delluwaat ensemble famille bi regrouper waat. moo ma gënal de incha allah. mais Cisco yow lan moo xew yow jigéen moo tax ngay gënante mbagg say waajur bu jigéen te sa soxna bu muy ñëw fii nii gis nga mu mel Fale yebna sa frère ak sœur yi may clamé ak yo yo lan non yo lan la? Boy yu bari nga wax. Est-ce que jotul nga leen def revue de presse télé? Wax nga deug. Parce que yow melaw won ni. Parce que lo xamanteni kenn sañ loko wax man mi sa xarit man ma la koy wax. Susko dafa jot ma wax la deug. Xolaatal bu baax na ngay doxalee. Non mais boy yow. Aïda sama jabar la. ma takk ko jëlee ko seen kër indi ko sama biir gàlle yow da ngay cautionné ma ñu nekk ci kër gi fii Ibrahima Nafi ku nekk di teg lu nekk ci daram lu nekk ci kaw te man muy sama soxna ma xam fi mu ma féete fu ma yóbbu man maa ko xam donc du ma nangu kenn di bund sama jabar mère moom du ma wax ay waxam quoi. benn conseil laa lay jox parce que waajur dafa doon li nga xamante ni dafa fort te mooy sa gàllaaj Je de la de changer sa situation par rapport à sa famille tu n'as qu'à changer. c'est bon. Tu as compris. c'est Kata à la prod. allo rek pour ak yow dama comme un yàlla na fi mbay rek laa yemale ndax na fi mbay sa mag la te ay xarit ñu ngi lay bëgg a yàqal da te meloo woon nii su ma sañoon nga xoolaat sa bopp defaraat sa sëy ndax li fi amoon jàll na daal kon nag su ma sañoon nga mel ni nga meloon yàgg na fi rek laa yemale. Ah, baax na may ma ñëw allo oui ci loo nekk. xoolal ainsi talumaa jaama sante mère bi ma fekk léegi sama biir néeg naan dafa may yedd. conseil bu ko mës a bi bu ko mës a conseil ci àdduna gàllaaj la lay indi sa biir néeg. gàllaaj. te instant bi sa jëkkër yaa ko téye ci sa loxo waaw. xoolal. lima lay wax dang ko deg bu ko yërëm nang ko dor ba mu sangoo deretam wala bala muy genn bu mu yobale bañ waw ñaf allo ma lay wax fan yëpp nga di ko weddi. ay ay ay ay nga ni nga may. boo demee sa kër léegi di nga tegal sa bopp sa bët te boo demee sa néeg ci sa rëkku ci rajo bu beige bi am na benn butéel saafara bu fa nekk bu am lu ñuul. da nii nga may def yaa ngi na fi mbay laa yemale rek. yemale woo ay ayda gisagoo dara. yow lañ fa tëj fekk butéel boobu nag mi ngi fa lépp lu ñu la soo suba ba ngoon loolu ngay def.

baal ma jàppal ne que jeex na yaay booy. baal ma. ma xam ne duñ yow laa doon seet yow yaay jaam yaay imbécile yaay nit ku bon ak yow li ma la defaral. njëkk te lii li ma dugg nii yëpp yaa ma ci dugal. ba tas sama say. ma tey ah Théose. yow nga jële ma dëkk ba indi ma Dakar bàyyi ma fi dem sëy ma nekk ci dëkk bi di taxawaalu fu ma yendu tey bu subaa ma fanaan fa des. yow kon da ngaa jalouse da ngay yaay nit ku bon maay jalouse ba mu neex. mbedd mi nga miin ñëwal ñu demaat ci rek